اللهم أحسن وقوفنا بين يديك كلمات الله تامات كلها من شر ما خلق السلام عليكم بوك انترنت انترنت سنغال تي في ñu ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di leen wax ne tey dañ fi am gan gu mag a mag di Serigne Khadim Sylla jóge fële ba Touba tey ñu fas yéene waxtaan ak wàccaayu màggal mais balaa dara mbokk yi damay bàyyi sama chroniqueuse bi Soxna Fassal mu nuyoo ñu doog a xus si waxtaan Soxna Fassal. waaw asalaamaaleykum Souleymane mbokk internet ci ñu ngi leen di nuyu di leen wax dalal ci leen jàmm ci seen plateau Islamic Jeunesse di nuyu sëñ Xaadim Sila mi nga xamante ni moom lañ fi dalal tey. waaw jërëjëf soxna Fassal damay damay bàyyi sëriñ bi mu nuyoo soxna Fassal ñu doo ko si waxtaan xam naa laaj yi ñu ko war a laaj bëri na si wàccaay màggal gi ndax jigéen ba pare so sëriñ bi nuyu naa la. jërëjëf mbokk yi mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan seen télé Sénégal TV. Mm-hmm. yaa ngi sante yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa salaatu wa salaam di jaafal jaajëfal mawlaana seyxuna alqadim cheikh ahmadou bamba xaadima rasoul di ñaanal sëriñ cheikh sidi muxtaar suñ borom yàggal ko fi lool tamay ko wér ba lim naal ci ay mébét yoo xam ne jëm na ci liggéeyal Serigne Touba mu def ci loo xam ne dara kaw njortam moom njabootu Serigne Touba ak jullit yëpp ak taalibe yëpp jërëjëf sunu fasal dama lay bàyyi nga duggal sa laaj sunu fasal ah yéen gis nañ ne yéen a ngi préparé bis bu rëy bis bu màgg ñu bëgg la laaj rek ana mooy màggal. Mhm. waaw jërëjëf soxna sàll mhm. màggal day ma jàpp na dafa bokk ci yi nga xam ne dafay ndamul lislaam mhm. ndax li tax ñuy woote màggal. keroog ba muy xew. xew-xew boobu day bis la woon boo xam ne bis la bu metti woon ci jullit yi bis la bu metti woon ci njabootu Serigne tubaa bis la bu metti woon ci taalibe yi. muy atum. 1995 mm-hmm. ginnaaw bu ko noonu lislaam yi jaxasee ak tubaab yi mm-hmm. ba moo waral ñu génne ko ci réew mi mm-hmm. diirub juróom-ñaari at mu nekk ko ci loxol noonu yoo xam ne seen pexe yépp moo nekkoon loo xam ne dana néewal doole lislaam ci taxawaay boo xam ne Serigne Touba amoon na ko ci liggéey lislaam ak yaatal ko ak ubbi ko ci ñuy jë taxawal lislaam ci ni ware ci atum 1995 loolu yi nag moo sabab ñu jële ko ci réew mi mhm. mu bàyyi ko woon ci mbakki Bari mhm. mu tombee ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mhm. nga xam ne bis boobu daal euh, ginnaaw bu sëriñ bi demee liggéey ba ñëw ba yàlla dogal mu am ndaw ci ndaw ndam ci xee nooni lislaam yooyu ginnaaw bi mu demee ba àgg ci atum 1927 ci la woo julit yi woo taalibe yi ni leen man day dama bëgg ngeen di ma sant yàlla ginnaaw bu ma ko liggéeyee ba mu defal ma loo xam ne defalu ko kenn may ma loo xam ne itam doon naa ko ñaan ñu ne ko loolu lan la mooy damay sant yàlla ngir ngeen sant ma ko ci dem gi nga xam ne demoon naa ko ngir xeexal lislaam wutali ndam lislaam nga baal ma foofu mhm. comme ni nga ne ngeen santale ma ko loolu ana nan nan ko war a defee waaw sant léegi yàlla mooy mhm. kenn ku ne xam na ne sëriñ tubaa mhm. dundam gi yépp mhm. ci ndigali suñu borom la ko nekk mhm. ak doon liggéeyaa ko no alayhi salaatu salaam ay jëfam yépp du génn yàlla du génn yonent bi du génn lu lislaam bëgg kon bu wootee ne damaa bëgg ngeen ñëw sant le ma yàlla dafa wax ne bis boobu bu ñëwee nañ ci jàng alquranul karim nga xam ne mooy waxi suñ borom tabaraka wa taala nga xam ne dara gënt a màgg mhm. ci lu nit war a jàng lu jiitu alquran lu gën alquran mhm. mhm. mu wax ne kon nañ koy jàngale alquran nañ koy jàng alquran ci bis boobu waaye itam nag di di ci jàng xasaayid yi waaye di ci berdeel gan yi ndax berde moom dafa bokk ci yoon wi waaye itam dafa bokk ci tiraanga joo xam ne nit bu nit bàyyi ko ci béréb rek ñëw wuy si la rek Mhm. tiraanga ji gën a rëy ci moom mooy mhm. tiraanga ja nga koy defal ci xeeti xewal ak yooyu dafa mhm. bokk ci tiraanga yi nga xam ne ndax dañuy wax ne gan moom bu ñëwee loo ko defar rek bu bu ñibbee moom dana net dana dana net li la mu fa fekk moom moo tax toujours nit bu amee gan li gën a foor gën a rëy tiraanga yi nga xam ne bokkut ci ay xewal ak yooyu loolu moom dana gën a jàpp gan moom dana gën a jàpp loolu ci ci muy waaw waaw waaw jërëjëf jërëjëf soxna Fassal dégg nañ sëriñ bi wax yi nga xamante ne moom ñu indil waaye tey moom soxna Fassal tey moom damay changé kàllaama quoi ndax tey mhm. tey daara mën naa ne lañ lañ ne dama am ben rek buma ko bëgg laaj ba ko permettre parce que man bëgg naa ko laaj ki nga xamantene mom moy dem magali ana lan moko war mm-hmm. waaw ki nga xamne ne jog ngir magali day mm-hmm. warna naa xam liko taxa jog mm-hmm. ndax ki wote ngir ñu wuy ko kuy wote ko ne bëgg na ko ko wuy si ñi mi wo ngir ñu wuy ko yit bëgg na num bëgg am na nu mu bëgg nu ko non ni mu nu ko moy ci lam newon moy li yàlla gërëm li yonnte bi sallallahu alayhi wa salatu wa salam gërëm te Serigne Touba kenn ku nek bo delo ci ay njàngaleem wala nga delu ci ñenn ño xamne mo leen yaral bopam rek da nga xamne mom léppam dafa sunnaw léppam dafa deppo ak njàngaleem suñu borom tabaraka wa taala ak njàngaleem yonnte sallallahu alayhi wa salam kon nak ki nga xamne dafa jóg ngir dem Touba ngir magali dafa wara jàpp ne dal mi ngi dem ci bërepp bo xamne bërepp bu tedd la te béréb ba mu jëm ji tam nag bokk na ci béréb yi nga xam ne Serigne Touba béréb boobu mooy bërëb bi ko gënal gënal ci béréb bu mas a dëkk. waa waa dëgg la sëriñ bi dégg nañ li nga wax bu baax mu mel ni dañu déggoon si mag ñi tamit ñuy wax ne Touba defaroo fa gaaw na lool waaye yàqu fa itamit lu gaaw la loolu tamit bëgg nañ nga nga ñaax si tuuti ñi ñu seetaan ñi nga xamante ne dañuy waajal dem dem si màggal gi. parce comme sëriñ bi bëgg na kuy ñëw mu waaj mu defaru mhm. mu ñuy jàng fa diine te li ñu seetlu mooy tey jii période yi nga xam te ne mooy événement yu mag yi mhm. muy gàmm mu di màggal yooyu yépp mhm. mën nañ ni am na ñu xam te ne la ñuy jaar yàqoo ndax te jii am na ñu nga xamante ne yàkkamti lu dul màggal jot rek ba ñu dem ndax taseek benn góor bu dee jigéen kazaalika loolu noonu ana yéen nan ngeen ci yéen tànk ngeen ciy dox daal yéen mhm. jéegu ngeen ciy dox mhm. ndax xam naa ne loolu umpu leen ni am na biir Touba loolu yëpp mu ngi dugg si ki nga xamante ne dafay màggali àllan mhm. moo ko war ba tey waaw comme li nga wax moom leer na waaye dafa dafay lu naqaree lijjanti ci mbooloo boo leenu wooyee nit ku nekk ak fa tolloo ak la doon njitteem ci bu ñëwee xam nga mënoo dugg néeg bi ne kii damaa bëgg a xam li xew ci néeg bee wala damaa bëgg xam ci xew ga waaye li am solo te am solo mooy képp koo xam ne dégg nga Serigne Touba dégg jàngalem Serigne Touba dégg mag ñi nga xam ne Serigne Touba yaroon na leen te yaraloon leen boppam ca lañ ne woon te gis itam ñi nga xam ne ñoo di njabootam ni ñuy doxe te di ca yar njaboot gi nga xam ne ñoo nekk ci ñoom ñu tudd leen ay dong di leen tërbee di leen yar ci yoonu yàlla ak lu yàlla gërëm mhm. jàpp naa ne boo bàyyee sa xol ci lu mel noonu yi mhm. boo demee da nga war a xam fi mhm. ngay teg sa tànk danga war a xam ni ñuy doxee waaye nag sëñ Tuubaa moom yàlla lay wooteel yoon sa sallam lay wooteel mhm. te lu baax nag mhm. képp koo xam ne dem nga ngir wuti lu baax mhm. loola nga fay am ku dem ngir wuti safaan it safaan ba nga fay am kon jërëjëf sëriñ bi si yooyu leeral damay waxaat ba tey ne waddaxta wa bararta wax na wax bu am solo mooy waman man man jada wa jada man jàll naaral jëf jël ñax a jëriñu ku nekk li nga jëf rek moom ngay fay ko soxna fasal ñu bàyyi la nga dugal beneen laaj bi waa ma koy laaj ana lan mooy xasida na lan mooy njëriñ te ma seetlu benn mbir. Mhm. danga wax léegi sa biir wax ne Serigne Touba nee na leen ngeen di jàng alxuraan ngeen di jàng xasaay te ñu mhm. seetlu maanaam murit yu bëri yu bëri bëri bëri ñi nga xam te ndax ñëpp jullit nañu. Mhm. képp kuy murid julit nga waaye tey ji ñi nga xamante señ Touba mooy seen mhm. wasila mhm. dañu seetlu ni ñoom mhm. kii rek nañuy gën a farataal di jàng xasaa yi daal alxuraan xasaa yi nga ca xasaa yi mooy alxuraan mais tamit dafa digle alxuraan te man yàgg naa dox daal kon dina baax mu wax ñu mu wax ñu lan mooy yi ak ban njëriñ la am ndax señ touba ñu ñëpp xam nañ nu si alxuraan macha allah waaw jërëjëf comme li nga wax noonu ci diggante alquran ak xasida ak ñi nga jàpp ne xëy na ñenn ci murid yi dañoo dañoo jàpp naanal naanal bismillah li nga xalaat ne ñenn ci murid yi mhm. dañoo jàpp xasida yi mel na lu <laughs> lii alquran de demewul noonu mhm. ndax alquran moom mhm. kenn ku ne xam na ne waxi suñ boroma masha te dara mënu koo gën a màgg itam dara mënu koo gën a rëy. macha allah. te Serigne Touba ginnaaw yàlla wax na ne lu mu am lu nekk rek. alxuraan moo ko may. macha allah te bëgg gu mu bëggoon alxuraan moom. tax na ba àggoon na ci. lal yi boppam yi nga xam ne daf ko doon am moom daw tëdd ci lal. waaye lal bu wërool wëloore bu nekk. daana ko am. lal yi boppam yooyu da ko daan fab fab kaamil alxuraan teg ci kaw lal boobu ba mu fees. muy wër di fab. parfois miski yi gëna neex diko ci sot nan ya kitab al karim anta abibi wa khalili wa qabl kunta tabibi nan ko yow al qur'an yaay sama xarit yaay sama soppe yaay sama docteur manam jàngoro juma am ju nek rek yow al qur'an ya ko meuna safara kon jàpp naa ne kooku ma ku ku koomu dégg laa wax ci Serigne Touba do mën fa qasida Serigne Touba yi diko ko al qur'an ndax Serigne Touba mom wax na lu am al qur'an ko may qasida yi nak mënuñu koo ñàkk jànk macha allah hmm. jàngal leen bu baax ndax dafay loo xam ne dafa bokk ci hmm. jeexit yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ñu ko bàyyil hmm. moo wax ne xasidati faaxat xasaidal kiram wala taqud abadan xayr ma nee na lu dul alquran ak hadis rek xasidaam yi moo ko gën a kawe ci moom te mu wax ne bu ngeen ma gisatut nee na sama xasida yi moo leen di tegtal sama jëmm ji te loolu wane na ko sax te wane na ko waaye nag amaana nag léegi ni ma ko gis ñu di ko doxale nii ñenn ñi mhm. loolu moom jar na taxaw seetlu mhm. Mhm. ndax gis naa ñenn ci ndaw ñi ñoo xam ne sax topp xasida yi sax tax na ba ñenn ñi sax pour ñu liggéey sax dëgg-dëgg liggéey sax duñ ko def waaw sëriñ bi doguma la foofu si ndaw ñi nga wax noonu parce que am na benn xasida bu sëriñ Tuubaa bind bu am solo muy mu tuddee ko te zawadu sixaar yóbbulu ndaw ñi bëgg naa nga ñëwal ñu si tuuti ndaw ñi parce que loolu lu am solo la waaw kay waaw xasida boobu loolu yëpp mhm. mooy li ñuy waxtaan rek ndax mi ngi mi ngi ciy wax naan yaa ayyuha sibyaanu laa tastaqilu anil hudaa wa bil ulumi istaqilu naam nee bu leen soxla woo lenn loo xam ne lu ak njub moo ci nekk rek nee na loolee na nee loolu bu leen ko soxla woo nee koy soxla wo moy fastaqilu bi hifzi mhm. wa tilawa na ngeen koy sox da ngeen di soxla wo mhm. bi ta wajtani boo ma jale saqawa na koy soxla wo di jangal alxuraan mokal yep dal bil hifzi nak la wax wa bi hifzi ki mokal ko moy deg gi wajtani bu wajtani bu majalisi saqawa moy ngeen moytandiku mboolem béréb bi nga xamne dañ fay defé lu ko moy béréb bi caaxaan ya nangam nangam yoy yep ndeysaan yow yakaru na serigne bi xasida boobu tey jar na eh di ko waxtaanal ndaw ñi parce que li nga wax dafa am solo de wajtani bu wajtani bu majalis saxaawa sa saxaawa te saxaawa bu ñu ko waxee mooy képp koo xamante ne kàccoor mu ne nañ oytundoo di di di di fréquenté bërëb yu nga xamante ne dañ fay defee ay caaxaan waaw loolu la sëñ Tuubaa dégg ndaw dénk ndaw ñi sono fasal mu nekk lu am am am solo di ñaaxaat ndaw ñi si jàngalem sëriñ bi ndax tey fi mu nekk bu ñu koy xool si jamono jikko yi dañu yaaxu sono fasal ah yaakaaroon tey war ngeen def genre majalis yooyu di créer genre majalis yooyu toog ndaw ñi leen wax jàngale sëriñ bi waaw loolu de bu dee Tuubaa moom am na te it xam naa ne ku ak njub yitteel lu mel ni seen télé bii rek Sénégal mm-hmm. TV tey jataay bii nga xam ne def na ko rek mm-hmm. loolu rek bokk na ci firndeel mm-hmm. jataay yi nga xam ne mën naa gindi nit ñi ngir ñu mën a xam fi ñu teg seen tànk buñ bu fekkee ak mbaax yitteel na leen wala bëgg nañ ko te it am na ñeneen ñu mel ne yéen ñoo xam ne ñu ngi taxawal itam jataay yu mel nii kon ku bëgg a gindiku daal yoon yi nga mën a jaar ngir gindiku moom am na fi bëri na nit ñi nag ñoo xaw a dëgër bopp mm-hmm. da ngay waxe fii mm-hmm. ñu déggee fee nga ne jaar lee ñu ñu jaar ne mm-hmm. waaye bu fekkonte ne dégg nañ njàngale mag ñi kese rek ah kon de man naa ne lu bari ci yàqu-yàqu jamono ji mën naa bañ am jërëjëf sëriñ si leeral wa daxta wa barata sasulla wax tey émission bi Soxna Fassal tey dafa changé tey dañuy delluwaat daara ji Soxna Fassal waaw moom bëgg ñëw rek ci ab murit nan la war a mel laaj nga laaj bu am solo waaw ab mom mm-hmm. nit ci mënu ko doon ta du doonub julit mm-hmm. kon lu jitu ci mm-hmm. ñu wax la deug deug melakan bi mo ab murit war a amee daal mooy bu set wicc wicc wicc wicc la wara doon masha Allah defar jëmmam yitam ba kenn du jaar ci jëmmam di ngagne l'islam wala mu diko sikkel ndax nit ki bo xasse doon ab jullit moo war a doon acteur bi nga xam ne jàpp na ne tey jii képp ku war a ŋàññ lislaam war koo jaare ci jëmm rek moom jëmm joojee war naa fexe ba jëmmam kenn du ko mën a jaare ci jëmm loolu mooy li jiitu ci yoon wi nga xam ne moo war a doon taxawaayu murit ginnaaw bu loolu jàll itam murit bi itam mm-hmm. war naa fexe ba xam critères yi nga xam ne sëriñ bi ci la doon doxe te tàggatoon ci mboolem mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom mu yar leen ci ba kenn ku nekk boo ko jëlee rek tey dangay jàpp ne mooy yoon murid tey boo jëloon ku ñu mel ne Cheikh Issa Dieng wala nga jël keneen ak keneen ak keneen da nga naan xanaa kooku rek mooy yoon waaw léegi nag mhm. la ci ab wala ab murid mhm. muy melakaanoo melakaan woo xam ne mhm.

te bokk ca. boo fa xasee rek day dem. macha allah mhm. sëlmu nag. Mhm. moom mhm. yeneen mbir la. waaye rikki nag moom moo xam ne du ko daf koy ci biiram. complètement xam bokku ci. ndeysaan ki muy fab nag di ko yóbbu di ko boole rabbu. moo ak yóbbu ko ci suñ borom. kooku mooy ki nga xam ne ànd naa ak moom taxool li doonu bëggam. li doonu ak njàngaleem nekk ca. am murid daal. dafa war a xam ci. yoon wi Serigne Touba nekkoon. yaroon ci ak njabootam mm-hmm. yaroon ci ay taalibeem mu nekk ci yoon woowee loolu ba tey ne sëriñ bi waddaxta wa bararta mais dafa am lu mu wax sonu fasal lu am solo solo si si si liñ ko laaj si jëm si wàllu murit mais yaakaaroon ne tey kon murit bu nekk war nga jàng jësbul xulub ndax sëriñ Tuubaa jësbul xulub dafa jàngal jàngal bu doy waar jësbul xulub bu wax mooy maanaam am na ñu ne bijju xol mm-hmm. am ñu ne jaajju xol mm-hmm. ah comme te jësbul xulub tey kon yaakaaroon ne murit bu nekk tey war nga jàng jësbul xulub defaraat sa xol delloo ko waat suñu borom